ngeen déglu yow Gabriel kan bo deglo li di nga xam. xolal xolal yàlla dafa def ni yaay musul tok sax bani lan lay jàppale aji man ma tok ne ko yaay sa dom la jàppale ko ma xel xel. man suma ma la ñaata laa daj ci couvre-feu bi su lexoon la xoon man Adji lu ma daj ci moom ba wax ma li tax ñu changer juge wax naa ko aji wax naa ko ko ko. loolu yëpp def na def na erreur def na erreur. dimbali na ko Françoise Hélène wala Kaliphone te bu boobaa bis dina ñëw ñu ne xel mu sell mu waxoon lii Kali mu waxoon lii Adji Sarr Kaliphone gis nga Kaliphone li ma def. bis sama ndey yàqu na yàqu te loolu secret d'état sax. Eh, secret d'état la. man maa préparé muy wuy ji sama kër lañ ko préparé avocat mi sama kër lañ ko préparé wee juge Maham Diallo laajal aji bi ma ko yóbbee ba ci biir bureau juge bi dama doon waxtaan ak juge bi Maham Diallo sama cousin la hmm. Maham Diallo ci loñ Maham Diallo ak Eliman Lam ñoo bokk benn dëkk ñoom ñaar ñoo doon jàngandoo alxuraan Eliman Lam mi ngay dégg hmm, hmm. ki Lam Maham Diallo. yaa même bi yaa deux semaines bi ma nekkee weekend salim man moom ñoo fa nekkoon la woon ak ak jabaram ak ay doomam. Abdou Dialy Kane bi nekk avocat principal Adji Sarr parce que maître El Hadj dossier wu Adji Sarr bi maître Abdou Dialy Kane moo ko yor te Abdou Dialy Kane sama cousin la. ah maître yoratu ko. ndax maître El Hadj nekkul avocat principal ci ku këyit yi. ah nekku ci. mi ngi mais il n'est pas l'avocat principal c'est-à-dire que tey juge bi buy jokkanteel ay courrier waaw c'est ça euh, maître Dialy la koy jar Dialy maître Dialy moo yor këyit wax ji la yor mhm. Abdou Dialy damay waxtaan ak moom jour te Abdou Dialy euh, prévenir woon na ma ci Adji Sarr ba la ma cee dugg ma dëgër bopp dugg ci mais lan ma waxoon yëpp Abdou Dialy Abdou Dialy est-ce que Abdou Diallo est-ce que suy wax ak suy suy wax ak aji si la jaar bu nangu am ak moom contact direct. yow lay wax ni yow. Ah, barke alxuraanu karim Seydina jox sama téléphone attends dinaa la jox sama téléphone nga lii samay message ak Abdou Diallo. oh man je suis foutu.